di gërëm ñi fi teew ñëpp di dellu si aussi di gërëmaat suñu mbokk journaliste yi ci woote bi nga xam ne woote nañ ko ëllëg bi nga xam ni ah président Macky Sall tànn na koo xam ni mooy sol mbubu leader de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour élection yi di ñëw muy en février 2024 na ko démbul ci samedi président janoo nag askan yépp ci baatu Moustapha Niasse wax ni Amadou Ba premier ministre moom la tànn comme ku nga xam ni mooy nekk candidat de la coalition benn Bokk Yaakaar pour ci jongante yi di ñëw mu neexee yàlla mu nekk tànneef boo xam ni tànneef bu am solo la waxtaan nañu gisee nañu ah sottante na ak xalaat ku nekk ñu bëri waxtaan te ñoom sottante xalaat ba loolu tax mu tànn tànn fu mel nii donc comme lu ko président Moustapha Niasse waxee tànneef la boo xam ni ñëpp ànd nañ ci ñëpp d'accord nañ ci ñu dellu soit nag ginnaaw bu ñu sante suñu borom di santaat bu baax président Macky Sall ci li nga xam ni def aussi ci liggéey bu nga Sénégal à travers le plan Sénégal émergent Sénégal nekkoon en 2012 ak fii Sénégal nekk fii at mi ci 2023 képp ku nekk Sénégal xam nga Sénégal moo xam ne ci wàllum économie moo xam ne ci wàllum social moo xam xam aussi ci wàllum bonne gouvernance ak état de droit président Macky Sall liggéey na Sénégal ak ah, te amul kenn koo xam ni di nga di di nga ko mën di werante dañ koy sant bu baax sant ki suñu borom tànn bi nga xam ni tànn na le premier ministre Amadou Ba te di fàttali nag nguur domaine yàlla la waaye yaakaar lañ ci am ni tànneef bii nga xam ni tànn na ko c'est pour que liggéey bu liggéey président Macky Sall liggéey moom mu mën ko continuer lu ñu li tubaab bi wax lekk lu mu fi bàyyi mu mën ko continuer yokk ko fuñ ko fuñ ko yaakaar ci lépp nag Sénégal président Sénégal émergent bi nga xam ni

ci nga xam ni confiance bi nga xam ni président Macky Sall jox na ko ko di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal réussite di ko ñaanal ndam ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar ci département de Saint-Louis ànd nañu à 1000 pour cent ci soit bi nga xam ni président def woote nag joxante loxo ànd nekk benn. pour que le 25 février 2024 suñu borom pas ñu ndam nak mënu ñu ko def te ñun ñu ci département de Saint-Louis les cinq communes commune de Pal, commune de Fass commune de Yeben gagnon commune de Gandon commune de Saint-Louis ñu nous. nekk ben bolé dolé ñun ñu nekk ci coalition Benno Bokk fii ci département de bi ñu ngi ñaan tàllal loxo le camarade Amadou Ba moom boot ñëpp waxtaan ak ñëpp képp koo xam ni peut am nga benn xel walla benn beneen beneen xel mu woo la seeti la waxtaan ak yow loolu dafa nekk loo xam ni. lu am solo la unité a une ñep autour de sa candidature parce que dañ ni parti APR et à tous les autres partis au niveau de la coalition la coalition euh, présidentielle coalition la coalition d'abord la majorité présidentielle élargie ñep ñoo xamni ñoo bootu won ci ginnaw président Macky Sall Amadou Ba ñaan nañ la ki ci nekk nga ñëw def dem ànd ak wax moom amul loo xam ni damay def ay ay mouvement wala ma def ay structure parallèle amul lu fi am mooy la coalition Benno Bokk Yaakaar l'architecture de la coalition Benno Bokk Yaakaar organisation de la coalition Benno Bokk Yaakaar foofu donc la ndam li mën a jóge donc ñaan nañ ko

te loolu bu neexee dañ ko dox ndam am ci bu soobee suñu borom donc lu may terminer mooy encore une fois ñu booloo nekk benn ndam li ngay wuti ànd wuti ko ñaan suñu boroom mottali ko te suñu saa yi àndee rek suñu borom daf ñuy defal ndam te lii ma gis woote démb yéen ñëpp ngeen ñëw teew. pour wane ni département de Saint-Louis mi ngi ànd ak lu président Macky Sall def man am naa yaakaar ni bu neexee yàlla nam mi gën fa jóge sofe suñu ma nekk gërëm bu baax di sant nga xam ne jóge nañu dans les communes du département ñëw toog wane ni ñooy ànd liggéeyandoo ñoo bokk wax ji te bu sobee si borom bu ëllëgee ndam li ñoo koy jëlal di gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah.